jaajëfatee jaajëfatee jaajëfatee sama gaay yi Mister Shake la depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon côte ouest voilà gaay yi tey dañuy ñëw defal leen benn vidéo ci euh, actualité bi li xaw résultat yi Macky Sall le tribunal wax ne moo gagné élection yi waaw man nag Mister Shake waxoon naa leen ne nii lay demee

nee na duñ ko nangu tey duñ ko menacé juge juge la yaakaar ne bu leen menacé bu recours dem conseil constitutionnel juge yi dinañ wax ne dañuy defaat Futa, ba fuuta loolu loolu moo yenewul maanaa defaat fuuta moo yenewul maanaa gars man li leen di wax PV fan la ana seen PV vraiment même Déthié Fall ba mu demee tribunal di def ci commission ba di di di di di wax ne bu ñu génnee résultat yi dégg naa président euh, daf ne ko ana seen PV wax ji yëpp loolu la Fuuta amu leen fa dara amu leen fa ay représentant kenn toogalu leen fa moo tax ñoom Farba Ngom ñoom Abdoulaye Daouda Diallo lu leen neex ñu def ko yéen sax wax ngeen ko Fuuta ay jaas yi lañ leen di menacé ku fi toog dinañ la rey ci ci ci commission yi ci bureau de vote dañ leen di menacer ba kenn du sax ñeme toogal Pastef wala nga toogal Yewwi Askan Wi wala nga toogal wàllu loolu nag yéen ko nangu moo tax gars yi jaar seen kaw def lu leen neex gonfler seen chiffre ana seen PV mais ngeen génn seen PV ngeen dugal ko ci internet bi nit ñi gis mais ñun dañuy toog rek di dégg ngeen di wax am naa PV am nañ PV am na bureau de yoo xam ne ñu ñoo gagné mais génn leen ko ngeen dugal ko ci ci internet bi xeex mënu leen ci dara man nag newoon naa leen ba fu muy mujj wax ji day bëri rek waaye dëkk bi du tàkk Ousmane Sonko bu dee ci moom ngeen yaakaar pour mu libérer Sénégal ki ay xeex Sénégal du mës a libéré Sénégal bu yowoo rek Macky moom ngeen xam ne lu ko neex lay def ci dëkk bi te du mujj fu fenn ndax tamit dañ wax dëgg dafa am nit yoo xam ne ba léegi Macky Sall la ñuy man bu ma toggee dégg ñu naan am nañu un million. nit yu leen voté c'est vrai que yu ci bëri dañ cooy yokk waaye am na ay nit yoo xam ne Kaolack ah Saalum Macky Sall lañuy votel voté léegi yéen boo leen toogee ñu leen di ñuy foqati seen résultat ah nii lan dara demee ba troisième mandat ñëw Macky Sall nen di def troisième mandat ndax yéen ñu ko waxoon yéen ñu Macky Sall bu gagné élection yi bu gagné élection yi après day jéem a def troisième mandat yéen ñu ko wax léegi nag. sàggan ngeen ba ñu wax ne Macky Sall gagné na élection tribunal bu ko xasee wax après lan ngeen di def tey Déthié Fall dem na ci bureau yi ne day xool lan moo nekk ci gees yi président bi ne ko président bi ne ko doo xool doo xool ñooñu Macky Sall moo leen di wax li ñuy def bu ñu fa ñëwee ne dañuy xool kees bu ke bu leen tijjil dara sàggan ngeen nax nañ leen ba duma leen Macky Sall ñëpp xam nañ ne Sénégal yëpp xam nañ ne Sénégal yi bëggatuñ ko dañ kaa suur loolu Sénégal yëpp xam nañ ko waaye loolu rek doyul loolu rek doyul Macky Sall faalewul loolu Macron sax mi ngi koy woo di ko félicité di ñu ñaawal Macky dafa woo Macron démb Macron ko bind ci tweet Macron di félicité Sénégal mais ñun Macron lan la ñuy félicité yoonam nekkul Sénégal ba mu ñuy profité ba mu ñuy félicité Sonko nag moom ndànk-ndànk lay def yàkkamtiwul ndànk-ndànk lay def waaye bakkenam moom du ko joxe pour Sénégal te wax na dëgg man yàgg naa la ko wax naa la ko fi <laughs> il y a waxuma leen ko fi woon même pas une semaine ma ne yi bu ko màcc sa sàccee lan la Sonko di def ma ne leen du mujj fenn waxuma leen ko fi woon. parce que Sonko bii ak Sonko bu njëkk ba du benn Sonko balaa muy xeex Macky ne da koy jàpp dugal ci kaso bi bu boobaa nag lañ wax lay wax mortal combat mais tant que Macky mi ngi koy bàyyi ci jàmm ak salaamam Sonko du wax génn leen di joxe ay ndigal ndax koo xam ne dañ koy jox ndigal. mënul joxe ndigal Sonko Serigne taxaa moo koy jox ndigal comprendre nga ñoom sëñ Abdou Mbacke Serigne ñoo koy jox ndigal bu gi naree génn xeex ñu ne ko bul xeex comme ni mu defoon euh, euh, le 8 mars ndax le 8 mars Macky jeexaloon na Sonko wax na ko démb ci conférence de presse la jeexaloon na waaye fan la mujj sëñ Mountakha woote après Sonko dellu ginnaaw loolu nag moom ngeen di regretter. moom ngeen di regretté te ndar nii ngeen nii Macky Sall nii lay sooxaale di ko sooxaale di ko sooxaale ba ne day def troisième mandat te du mujj fenn waaw man nag waxoon naa leen man maa ngi bëgg doy maa bëgg jaaxle waaw lii moom dëkk boo xam ne benn nit rek mooy xeex muy président Sonko jeex na ana Y'en a ana euh, société civile bi ana sàmm jikko ana ñoo lànk léegi ngeen bëgg Sonko rek di jàmbarloog Macky Sonko mi ngi def li muy def mi ngi nii am na lu mat xaw ma ñaar cinquante député xaw ma Sonko mi ngi def li def am na groupe parlementaire ah chef de l'opposition léegi leer na ci bopp nit ñi ne moom mooy chef de l'opposition est-ce may dégg mi ngi def li muy def mais ana kilifa bi nga xam ne dañ ko fi jàppoon tëj ko génn mu génn kenn déggatu ko ana caat ana Clédor ana Malal Talla ana Simon bi nga xam ne moom it dañ koo jàppoon génn ko kenn déggutu Karim Xurum Xaq mu ngi ci internet bi moom sax au des fois nga gis ko ci terrain bi Assane mi ngi ci terrain bi mi ngi wax mais à part ñaan ñooñu kan ngeen gisaat muy génn di fi ay Fadel Baro léegi dañoo bëgg mu nekk politicien ñu fal leen est-ce que ne muy dégg léegi nag discours Sonko bi c'est un discours responsable moom moom xam na ne sénégalais yi suur nañu Macky Sall waaye nag waaye nag mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam sénégalais yi bu dee lii moo leen neex na leen Macky Sall di sàcc ay élection ngeen seetaan ko ci mais ci yéen la ci yéen la Ousmane Sonko ngeen di xaar mu jox leen diggal génn leen ci terrain bi ngeen def ay marche loolu Ousmane Sonko dootu ko def ba li ñuy wax nii du mujj fenn ndax fii ak ñu dañuy dem conseil constitutionnel dina mat weer. boobu fekkee ne Sénégal yi seen xool jiif na ñu indi leen làmb euh, bombardier euh, euh, xanaa Balla Gaye ak Gris Bordeaux di leen indil ay concert yu Youssou yooyu lañ leen indil Youssou Ndour nag mii doon wax ne Macky Sall moo ñu arrangé Sénégalais yi wan nañ ko ne Macky sàll arrangé wu te lu ñuy gën a dem Macky dooleem di gën a wàññi waaye li ngeen war a xam mooy yoo yoonam nekkul ci loolu Macky yoonam nekkul ci Sénégalais yi bëgg nañ ko. wala bëgguñu ko parce que mom France la gëm gis nga bu mu paré dafa wo Macron <laughs> dafa wo Macron Macron sax dañ féliciter nan ko way Macky merci ci appel bi ma appel di rendre compte Macron Macron Sonko nak di mi xexé man man bettu man néwon na leen dëkk bi ci tak néwon na leen bal du tak dëkk bi du tak ñu ngi commencé rek di xoxatal nit ñi di japp ay ay ay nit ay Ousmane Diagne han ah, ba légui Euh, euh, euh, force spéciale tiital nañu Pape Alé Niang démb mu ñuy wax ay viol Sitor Ndour dugg na fii génn fi xaw si Sitor Ndour la xaw ma ñun ñu nekk ci ay élection ñu war a wax ci résultat ngeen ñuy tegal ay émission siif nañu xale bii wala siif nañu kële wenn waa APR moo ko def mais am na yenn xale yoo xam ñu ngi leen di siif chaque jour te kenn waxul ci seen affaire waxuñu ne siif bi lu jaadu la mais ñun Pape Alé bu dee cinq cent mille personnes dañu lay seetaan ñu nekk ci ay élection waroo ñu tegal ay maire naan sama doom dañ ka lii dañ kaa laa di ñu indil ay diversion Pape Alé Niang ni muy xeexee vraiment des fois war na ko xoolaat quoi tey nag ñu yow ñu ñuy wax way Sitor Ndour jàpp nañ ko defeere nañ ko bëgg changer sujet bi sujet bi du Sitor Ndour DG COUD la xaw ma ci Macky Sall la bokkul wala bokkul ci Macky Sall sujet bi mooy indi leen seen i preuve que ne Macky Sall dafa sàcc canal euh, dafa sàcc Ranérou Podor ak Matam saggan ngeen ba mu jël élection yi man nag waxoon naa leen élection yoo xam ne Macky Sall moo koy organiser Antoine Diop di ko organiser nga gañe leen benn yoon bëgg leen gañewaat loolu du am waxoon naa leen ko Macky Sall du ko seetaan Antoine Diop du ko seetaan ñu naan dafa woo Macky ah, Antoine Diop ne ko 82 laa soxla ñu naan amul majorité Déthié Fall ku mu yem Macky Sall bu amee 82 aar lu ñu aar Sénégal bokk ci moom Pape Djibril Fall dara bokk ci moom. même bu dee sax aar Sénégal kese Thierno Alassane Sall nga ne yorul majorité kon kan moo yor majorité te leer nañ si député yi ngeen am Macky Sall dina ci xëcc ay ñaari nit ñetti nit wala juróom jox leen xaalis jënd leen mais Sénégal du dem Sénégalais yi ci boppam yéen a yéen war a comprendre ne Sénégal du dem man nag li may digal jeunesse bi mooy jeunesse bi li mu leen di digal mooy ngeen jàpp ci yàlla. ngeen jàpp ci yàlla te bañ a dundee yaakaar parce que yaakaar dina tas man de sama yaakaar du tas parce que lii waxoon naa ne nii lay demee mais maanaam Macky Sall dina sàcc élection yi te dara du yëngatu waxoon naa ko sàcc na élection yi lan moo yëngatu dara du yëngatu ñu may xay ay cour constitutionnel ak Ousmane Sonko di menacer juge yi mais Ousmane Sonko lu mu menacer juge menacer juge du tax juge yi. Macky Sall li ñu wax li mu bëgg la ñuy def parce que ñu ko deful dañ leen di dàq te mën nañ leen rey mën nañ nangu seen xaalis mën nañ leen def lu ne kon juge yi Macky Sall la ñu gën a ragal que Ousmane Sonko Sonko bu yóbbu mu xam loolu Sonko nag man li ma leen di wax mooy nii leen nar a def di sooxaale ak lii di sooxaale ba deux mille vingt quatre Sonko fas yéenewul jëlee Macky Sall ci pale ba tant que Macky Sall jéem a ko rey wala mu ne da koy jéem a jàpp. Sonko fas yéenewul jëlee Macky Sall ci palais ma lenn lay xaar Macky wax troisième mandat te loolu Macky du ko def fii déwén déwén la koy def 2023 2023 déwén ci la Macky Sall dara wax ne day def troisième mandat nag bu boobaa nag ñu xam ndax Sonko daf ko ci bàyyi wala du ko ci bàyyi te am na nu muy demee sax Sonko bàyyi ko ci ndax Sonko moo ne Macky bu forcé troisième mandat du gouverner. kon Sonko def na ci bopp Sénégalais ne Macky Sall dina forcer troisième mandat ba gagné waaye duñ ko bàyyi bu nekk président mais loolu Sonko buñ koy def suñu bopp man de moo tax fu mu nekk nii dara dootuma bett Sénégal lu am rek man d' accord naa waaw Sonko bu xeexee d' accord naa bu xeexul d' accord naa parce que Sonko desalutuñu dara boo leen sàgganee ba Macky Sall toogaat li fi des ci réew bi yëpp mu jël ko mais c' est parce que yéen a ko bëgg. Sénégal yeewoogu leen bu boobaa nag ñun tamit ñu xam ne noonu la mën a demee Sonko nag ñun diggaluñ ko muy rey boppam muy naan dañ parce que Macky fi mu nekk pare na ku génn mu rëq sa dëkk parce que waxoon na ne lu fi amoon doot fi amaat ana Mankaabu ana l'autre Seck ñu ngi noonu ñu jàpp comprendre kon nag man li may wax nit ñi mooy li ma leen waxoon moo am Macky Sall Antoine Diome kenn mënu leen gagné ñaari yoon yu tegle mënul ne waxoon naa leen ko duñ ñoom duñ ko seetaan bu ñu waree njuuj njaaj dinañ njuuj njaaj bu ñu waree sàcc dinañ sàcc te loolu la ñu def te li ma leen di waxaat lii de jàppaat leen ko jàppaat leen ko de mooy ne conseil constitutionnel dina dëggal ne Macky Sall moo gagné te Sonko du def biip biip du ko def bu ñu defee benn marche ci lay yem ñu reyaat fi yeneen ñaari xale ku nekk demaat toog sa kër ba 2024 2023 Macky Sall am na nu muy demee sax du sax organiser élection 2023 dina fexe ba xeex am ci réew mi bu dàq élection yi toog fi nag par force Macky noonu lay def parce que xam ne Sénégalais yi bëggutuñ like leen partage leen abonné leen Mister la li benn réaction la ba beneen ñu defa leen vidéo jaajëf vive le